waaw dama bëggoon nuyu leen bu baax a baax a baax sant leen ci seen teewaay nga xam ne duguleet depuis bi ñu commencé mettre en œuvre mesures yi yëpp docteur du président decrété état d'urgence chaque fois ñuy daje fii ci gouvernance bi ngeen di jël xabar xam ne ni ñu ngi tukkee ci euh, comité régional de gestion des épidémies ñu ngi leen ciy gërëm bu baax xam ngeen ne guerre bii nga xam ne nii parce que guerre lañu ko mën a tuddee ñu ngi koy guerre jàngoro ju bon ji nga xam ne dama ko tuddee sax ouragan du mal cest à ngelaw lu mag la bu nga xam ne nii du bàyyi dara day remporter lépp lépp lu yóbbu su fekkee ne taxawuñu ci ah il faut que pour ñu mën a gagner guerre boobu ñu changé waat suñu comportement changé waat suñu nekkin ak ñu ñu nekkee suñu bopp ak ñu ñu nekkee ak suñu moroom moromu nit tey ci ak man que fii mbir mi toll ñuy dégg tout le temps ay cas yu bees cas yi di yokk il faut que ñu yokkaat mbir mi ñu nàmmaat nga naa yi préparé waat fagaruwaat sinon suñu ko deful rek boole ci ay sanction pour ku ko ku ko jalgati boo moytul jàngoro ji danañu man ñaanuñu ko yàlla te nag jàngoro ji waruñ ko bàyyi muy law waruñ ko bàyyi aussi mu ñuy attaqué ba tax na président de la république son excellence Macky ci décret boobu nga xam ne numéro deux cent vingt la huit cent trente du vingt trois mars deux mille vingt moom xam na loolu ba tax na mu décréter l' état d' urgence sur toute l' étendue nationale du territoire national état d' urgence nag boo ko déggee mooy euh, liberté yi nit ñi amoon ci dem beeg dikk beeg euh, dem fu neex yendu fu la neex fanaan fu la neex léegi yooyu yëpp dañu koy wàññi dañu koy wàññi. Euh, ba tax na état d'urgence boobu wax naa leen ñu ngi sukkandiku ci constitution bi sukkandiku ci loi soixante neuf vingt neuf ak décret d'application pour nag mën a appliquer état d'urgence boobu ministre de l'intérieur monsieur le ministre de l'intérieur jël na arrêté wax naa leen fi numéro arrêté bi le vingt quatre mars deux mille vingt la ko jël euh, arrêté boobu nag laal na fànn yi fànn yi nga xam ne nii domaine d'activité yi ak nit ñi nga xam ne ak place yi nga xam ne nii la ñuy war a defee application yemale dem yenn activités yi pour que vraiment rassemblement yu mag yeeg yooyu yëpp nit ñi bàyyi ko changer comportement yi pour wàllaate boobu nga xam ne ni jàngoro ji ñu ngi koy wàll ak li nga xam ne nii ñu ngi koy def ci nit ñi ñu mën ko dindi mais xam nga ngeen ko xamee région Kaolack moom itam mm, am na lu nga xam ne nii moom mooy particularité moom la bindoo moom la bindoo moo tax ba démb ñu ngi def suñu réunion fii teni naa ñaari réunion ci suba ak ci ngoon pour ñu xool euh, digal yooyu nga xam ne kilifa yi nekk ci kaw ñoo ko digle nu ñu mën a defee ba appliquer ko sans faiblesse fii ci région xaw Kaolack dañ ko dajale nag li ñuy wax centre d'intérêt ci fànn yu ne fànn bu njëkk bi mooy wàññi dem beeg dikk bi dem beeg dikk bi ci nit ak euh, service yeeg yeneen ba tax na ba euh, ci loolu danañ appliqué bu baax a baax a baax tere bi nga xam ne tere nañ ko loolu dañ ko tere ci jamono ji état d'urgence bi nekk en vigueur dañ tere déplacement maanaam nit ku tukki jóge ci région dem ci région dañ ko tere mooy transport en wala même véhicule personnel nit ku jóge ci région Kaolack bëgg dem ci beneen région tere wala nga jóge ci département bëgg a dem ci département loolu aussi tere sauf nag autorisation man nga am autorisation spéciale mais autorisation spéciale boobu ku ñu koy jox dafay fekk ñu saytu ne mënul ñàkk ñu jox la ko te autorisation boobu duñ ko généraliser parce que boo ko généraliser moom bañ ko tere ñoo yem liñ ciy bëgg rek mooy ku ne boo toogee sa région ku ne toog sa département doo gis ku jógee région beneen région ñu indi jàngoro ci région bi doo gis ku jógee ci département bi dem yóbbu jàngoro ci beneen département bi te bu ko fa yóbbu du ko fa jëlee looloo tax ñu def mesure boobu mesure boobu loolu rek moo tax ñu def ko am na nag ñoo xam ne mën nañ leen autoriser mais bëri wuñu te pour nga ñu autoriser la il faut ku ñu def ko de manière exceptionnelle pour xool lu tax nga bëgg a def déplacement boobu waaw loolu bëgg nañ ñi xam ko euh, rawatina nag déplacement yi nga xam ne même su fekkee ci biir région bi la même su fekkee ci biir région bi la wala ci biir benn dëkk comme ci biir la couvre-feu mooy def ne si euh, vingt heures ñaar juróom-ñetti waxtu ci guddi ba juróom benn waxtu ci ci fajar parce bu fekkee ne six heures vingt heures laa ko liiree ci tubaab dama jum vingt heures la juróom-ñetti waxtu ci guddi ba fajar six heures déplacement yooyu waxuñ sax région à région de parce que région à région ko parce région moom muy vingt heures rek beneen beneen heure ñoo ci yem nit mënu ci déplacé wu wala département à département mais couvre-feu nag moom dafa gën a méttil mbir bi parce que couvre-feu moom ci benn région sax wala ci benn dëkk commencé nañ ko démb bërki démb juróom-ñetti waxtu bu jotee ci guddi ba juróom benn waxtu ci fajar kenn amul droit génn ci biti di dox wala ngay dawal oto sauf nga am autorisation comme li ma wax rek autorisation boobu aussi day fekk mu nekk autorisation bu nga xam ne danañ ko soytu ba soit gouverneur jox la ko wala préfet jox la ko euh, ñu yokk ci ne lépp luy cortège maanaam ay ñu ñu ànd taal seeni oto euh, di klaxonné wala ñu ñu ànd def groupe bu mag a mag a mag topp mbedd mi di dox cortège procession ak yeneen manifestation ci kaw mbedd mi loolu moom dañ ko aay te loolu moom amul sax négocier ñaareelu fànn bi mooy dajaloo bi ak manifestation ci euh, bërëb yi nga xam ne ni bëri dañ fay daje bëri dañ fay daje loolu dañ ko aaye parce que tàncaloo beeg ak ñi ñu ñi ñuy dendee te maladie bi dafa gaaw a wàlle loolu tax surtout ñu koy bañ ba tax na ba xam nga bu ngeen seetloo ci mesure yu njëkk yi luuma yi dañ ko tere dañ ko tere parce que luuma ama am na sax ñu may posé question ne waaw bu njëkk avant mesure bii di ñëw lu tax yéen ngeen di permettre ngeen aaye luuma ubbi ba pare marché yi jaay par jour ngeen permettre ñu ma ne ko loolu dans un premier temps la parce que xam nañ ne luuma moo gën a garaaw fab parce que luuma ña fay ñëwandoor ku nekk doo xam fu mu jógee kii day jógee fële kii jógee fële am na luuma ñuy jógee sax yeneen région wala yeneen réew am nañ luuma yi xam ne moo am ne yeneen réew sax dañ fay dañ fay ñëw donc ñooñu moo tax luuma gën a garaaw te dafay bëri ñit rax ci dool yi luuma boo seetloo par rapport ak sax marché bi nga xam ne mën nga ñëw rek jënd dem mais luuma daf ci bëri ñu nga xam ne nii bu ñu fa ñëwee dañu fay yendu ñu bëri bu ñëwee ci luuma dañ fay toog di wër di taxawaalu di waxaale boo añ jotee ñu mbëkk rido dem añ naanandoor ataaya jaxasoo donc de telle sorte que luuma moom waxuma la rassemblement mi façon maladie bu ne mën na fa génn moo tax dans un premier temps ñu viser luuma yi dañ ci dellusiwaat gën ko dëgëral luuma moom tere nañ parce que hebdomadaire moom tere nañ mais bu ngeen seetloo parce que loolu lépp xabaar yooyu ñoom am nañ ko bi ñu teeree luuma dafa am ñu nga xam ne nii ñu daan dem ci luuma yi dañ mujj seen activité ci marché quotidien maanaam ñu aaye luuma nga bàyyi nga bàyyi luuma bi de dem ci côté quotidien bi donc marché quotidien bi day explosé day gën a bëri nit parce que ñu doon jaay ci luuma yëpp léegi nag ñoom ñëpp taxu si nañ ñëw ci marché hebdo marché quotidien bi donc mu gën a mu gën a far nag ëppi loxo moo tax ñu ne loolu lépp naa ci ñëw léegi ci réglementation marché yi loolu lépp dinañ ko gën a mën a réglementé pour am heure d'ouverture ak heure fermeture mais pour cela ñi nga xam ne nii dañoo jógee ci mooma yi ñëw ci marché au quotidien yi pour gën ko xatal yooyu yëpp dinañ ko xool parce que ku ñëw indi sa benn kaay lal fii wala nga indi sa benn table te amoon place ci marché bi loolu yoo yomb a xam ñooñu amuñ place seen marché quotidien kooku moom dañ ko dindi ba pare veille aussi ci heure d'ouverture ak heure fermeture marché marché yooyu nga xam ne si jour dañu ubbi loolu ma dañ ko aaye mais marché yi nga xam ne dañu ubbi chaque jour ñooñu waxtaan nañ ci fexe ba ñu ubbi mais bu ñu ubbee aussi ñu permettre nit ñi ñëw dugg ravitailler dugg li ñuy dugg dem parce que mënuñ mënuñ ko tëj euh, en tout cas de manière mën continuer pour le moment décidé wuñu ko parce que dañuy permettre nit ñi au moins bu ñu xëyee suba teel ñu ñëw dugg ci rapidement dellu seen i kër moo tax ba ñu ne marché yooyu ñu ubbi sept ba bu ñu jullee tisbaar ba pare sept heures ba bu ñu julee tisbaar ba pare ñu rombe ñu rombe euh, actuellement préfet mi ngi ciy waxtaan ak autorité municipale yi mi ngi ciy waxtaan ak délégué marché yooyu yëpp mais daal loolu ñu décidé sept heures ba bu ñu julee tisbaar ñu rompe bu ñu rompee nag ñu jéem xool nan lañ koy nettoyer nan lañ koy désinfecté ba suba marché nag bu ñu ko waxee rek newul rek ñi nga xam ne nii am nañ cantine yi ñu mën a repérer weesu na loolu parce que boo ko waxee da nga gis ko génn ci biti génn ci biti jël ab puus-puusam wala jël ab taabalam lal ne man bokkuma ci marché bi déedéet ñu ñëpp ci bi lañ ñu am cantine buñ mën a xam mën a repérer ak jaaykat yi nekk ci ci aux yore seen i yi seen i puus-puus ak ñun ñëpp lañ wax parce que ñun ñëpp aussi day am ñu xam ne nii dañ ñu wër leen daxasoo beeg yooyu ñëpp lañ wax à partir de quatorze heures buñ julee tisbaar ba pare ñu fermé ñu nettoyé désinfecté bu subaati Euh, leneen li ñu constaté aussi mooy wax naa ko léegi mooy marché hebdomadaire yi ñuy mujj def euh, wala ñu toxu ci marché marché au quotidien yi wax naa ko léegi li ñu si bëgg daal mooy permettre nit ñi bu xëyee di dem marché dugg li ñuy dugg quatorze heures marché yi fermé ñu ko deful da nga gis marché yi nga xam danañ danañ danañ fonctionner ba heure bu leen neexee heureusement que sax bu amuloon couvre-feu bi am na marché yi nga xam ne avant couvre-feu yi dañ daan fonctionner ba ay vingt deux heures ay heures yu kenn xamul yooyu léegi dañ ko tere li ci topp mooy restaurant yi ak yeneen débit de boisson yeneen débit boo ne débit de boisson nag mooy fu ñu jaayee lu ñuy naan lépp xeetu lépp lu ñuy naan rek débit de boisson la ak restaurant yi ñooñu buñ ci waxul ay nit mën nañ fa dajaloo ay nit mën nañ fa dajaloo fees fa mën nga dugg ci benn restaurant boo nga xam ne nii mën na am ay cinquante couverts wala plus te duñ jël distance yi ci war nit ñi dañuy dajaloo dell di waxtaan di di reeka xaxataay donc yooyu yëpp occasion la pour ñu mën transmettre maladie bi sans compter nag maintenant nga xam ne xeetu lu ñuy naan lañ fay jaay aussi ay nit mën nañ fa dugg fees fa donc ñu ñëpp daal dañu ne dix-sept heures ñu fekk kenn ubbi xam lu tax parce que dañu bëgg kuy ñëw di jënd lu ñuy lekk wala lu ñuy naan da ngay jënd ñu jox la ko nga dem sa yoon doo fa plat à emporter donc le régime de plat ou boisson à emporter ku ñëw ci restaurant yooyu wala nga ñëw ci ñuy jaayee lu ñuy naan muy boisson sucrée beneen façon boisson toog fa di ko lekk amu fa boo toogee keneen toog keneen toog keneen toog rassemblement am loolu moom duñ ko négocier sax ñi dajaloo di di di fecc ak di wéy ak dancing yeeg ak cinéma yi yooyu moom dañ koy tëj rap vingt quatre heures sur vingt quatre durant tout l' état d' urgence kooku moom tëj rentre c'est clair maintenant ñetteelu centre d' intérêt bi mooy xew xew familial yi cérémonie familiale xew-xew yi am ci njaboot gi xam ngeen xew-xew yi am ci njaboot gi mën nañ wax ne presque ñett la kuy ngénte kuy takk wala kuy jéetale mar day kuy dëj yooyu yëpp dellu nañ fii ci Sénégal ay xew-xew la yu nga xam ne ñi bëgg xumb-xumb ku ne la ñu invité ku ne mu fees dal ah tàcc yeeg wuy yeeg sabaru yeeg yooyu yëpp jolli surtout pour takk yi ak ceet yi ak ngénte yi loolu tax may wax sabaru yeeg tàcc yi mais dëj moom ku nekk xam na ne du xew jàmm mais dëj aussi nit ñi dañuy bëri dañ fa fees dal pour loolu xew-xew yooyu yëpp dañ koy dañ koy tere dañuy tere bu fa dajalee ay nit yu bëri dañ koy tere muy rassemblement dañ koy tere parce que nag mariage wala baptême mën nga ko suspendre wala nga reporté ko fekkee jamono ko laaj fekk ngénte bi boo ko ngéntee lu ne mën na ci xew ñu aj ko moo gën dégg nañ fi ay cas yu nga xam ne nii pas ci région bi mais dégg nañ ay cas yu nga xam ne nii ka yore woon jàngoro ji dafa dem ca ca xew ba ba mu demee ca xew ba képp kum laal wala kum jegeel wala kum waxal presque bu ñëw kooku fi mu ne nii ñu ngi ñu ngi lay saytu parce que mën naa am na la donc loolu lañ ciy bañ donc luy ngént luy takk wala céet nañ ko reporté wala ñu suspendre ko ajandiku parce que rassemblement yi dañ koy aaye dëj nag ah du xew-xewu jàmm parce que génn àddina moom faw ñu defar la jullee la ñu la suñu borom moo tax ba loolu bu amee dañ bëgg ñu dajale rek lu fi euh, loolu la ñuy ñaan ba du fi am sax ba état d'urgence di jeex ku am soo xew bu mel noonu nga dajale rek lu nga xam du weesu fukki nit fukki nit ci mbokk gi ñu ñëw taxawu ko jëbal ko suñu borom waaw loolu daal moom itam li ñuy wax par rapport a xew-xew yu mel noonu quoi li ñu remarqué nag mooy ci wàllu googu depuis quelque temps police ak gendarmerie remarqué nañ ci ñu bëri ñu koy jalgati mais dootuñ ko nangooti dootuñ ko nangooti am na sax ñuy làqatu am ngénte wala am takk jëlee ko fa mu waroon amee dem làq ko feneen waaw di sabaroo ko di bànneex woo ñu ñu bëri parce que yaakaar nga ne làqatu nga te foofu duñ la gis loolu euh, force de défense et de sécurité sont peu partout ko defee bu ñu ko xamee ah danañ la danañ dañ ko diggaale ak yow koo xam aussi nga signalé ko parce que signalé boobu du du du du du du du boole mais aar sa bopp la aar sa bopp la loolu je crois que dañuy si góor góorlu maintenant bi ci des mooy dajaloo yi ñuy dajaloo ci jumaay jàkka yi ak église yeeg yooyu. je crois que monsieur le ministre de l'intérieur expliqué na ko démb. Euh, waxuñu bu kenn julleeti loolu mënuñu ko amuñ maqaamam te ñemewuñu ko. kenn du julleeti ko xel xalaatu ko. mais dañ ne ni ñu fexe ba. fàtte naa gannaaw bu ma gërëmee sante kilifa diine yi. di région bi di région bi yëpp. da leen di gërëm di leen sant. parce que ajuma bii passé euh, xawoon naa métti tuuti mais nag ñu ci bëri ci ñoom digle nañ jullit yi pour ñu julli seen kër ñi xam ne aussi jotuñ ko woon def aussi peut-être euh, question communication la wala malentendu moo amoon mais par la suite ubbil nañu seen i bunt dem nañ ci ñoom waxtaan nañu ñoom bu baax a baax a baax a baax dégg nañ bu baax li ñu wax ñoom dégg nañ li ñu wax maa ngi leen ci gërëm di leen ci sant bu baax a baax mais dañ bëgg a wax ne mbir mi demee na bu nga xam ne nii muy ajuma ak yeneen bés yëpp dañu bëgg bu waxtu jotee ñu ne euh, kii nodd noddal bu noddee ba pare ñu ne julli leen seen kër yi nodd moom dañ ko def pour bañ a neenal jàkka yi nodd ñëpp dégg ñu ne nag ah xew-xew bi am de tax na ba julli leen seen kër ak ajuma ji moom eh, d'accord nañ ci bi ñu defee ñun concertation yi ñu def waxtaan ak ñëpp loolu moom d'accord nañ ci dañu bëgg nag ñu élargir ko pour yeneen bés yi yeneen bés yi tamit bu nodd jotee waxtu wu ñu nodd ne ah julli leen seen kër bu ko defee rek rassemblement boobu partout partout partout ñu wàññi ko bu ngeen seetloo donc fépp fu ñu di rassembler wu rek bawuñu ko parce que sax peut-être bu doon nañu lu tax ngeen demandé lii demandé wu leen léegi dafa daj rassemblement am rek bu ngeen seetloo suñ kàddu aju na fa kàddu aju na fa loolu je crois que ñu bëgg ñëpp dimbale ñu ci ñu ci dimbalee yàggut lu métti moom yàggut yàggut euh, mu métti tuuti ñu muñ ko mu jeex ku nekk delluwaat ci sa ci sa soxla moo gën kat ñu bañ ku ñu sonal bëgg ku nekk bëgg ci nekk ci la la nga doon def ba leneen am fi ñaanuñu ko yàlla am na fu nga xam ne buñ fa tolloo kenn dootul waxati nit bu rassemblé wu dag du gis ko rassemblé wu bu sikkim lakkandoo ku nekk sa bopp ngay taal loolu de loolu la wax sikkim lakkandoo bu sikkim lakkandoo ku nekk sa bopp ngay taal bala ñooy yegg foofu nag ba sikkim di lakk ko deku ci ba nga lakkalee wul dañu jël suñu matuwaay xar ko xar jàngoro ji wala lekk ko lekk lekk saalum saalum lekk lay wax lekk jàngoro ji ba du yegg ba du yegg loolu nag li ñu ko mën lu may rek mooy nañ su suñu comportement yi muñ lu métti yàggul bu ñu ko muñee rek je crois que bientôt danañ gis lumière bi bu ñu gisee lumière bi nag alhamdulilahi rabbil alamin ku nekk dellu ci euh, fa nga nekkoon loolu daal je crois am na solo fi may jeexalee rek mooy couvre-feu bi application couvre-feu juróom-ñetti waxtu la six heures juróom benn waxtu ci fajar kenn du génn benn oto du daw activité yëpp arrêté sauf autorisation nga xam ne gouverneur wala préfet moo koy délivré démb mu doon premier jour bi yéen ñëpp remarqué ngeen ding ding jéeg klaxon yeeg ding ding naam nit ñi di daw ding ding ding ding ding ah loolu lépp yéen remarqué ngeen ko démb hmm? ay woy sama tey lu ne dekk démb remarqué ngeen ko démb parce dafa mel ni am na ñu nga xam ne nii daf leen a bett pourtant warul bett kenn wax nañ ko waxati ko rajo yeeg télé yeeg yooyu am na na peut-être ñu nga xam ne peut-être duñ déglu rajo duñ seetaan télé looloo tax ñi nga xam ne peut-être peut-être duñ déglu rajo duñ seetaan télé xanaa am nañu ay nopp pour dégg moo tax ma bëgg euh, gannaaw bi ma consulté directeur Sonac usine Sonacos bu Lindiane fii ci Kaolack sept heures et demie ci ngoon dix-neuf heures trente bu jotatee dana am ñu actionné sonnerie usine Lindiane bi sonnerie boobu bu ñu ko actionné fu ñu toll ci Kaolack boo mooy sax da nga dégg waa Guèye dégg nañ fu ñu toll ci Kaolack ak loo tëx tëx tëx tëx doo dégg loolu mooy premier avertissement bu ñu demee ba huit heures ci guddi moins quart sonnerie bi dana sonewaat pour attention ñi nga xam ne dañ naan ah dañ maa bett dootuñu amati lay xanaa boo amul montre aussi da nga am da nga dégg xanaa wala keneen bu ko déggee dañ la ah attention booy sonnerie bi kii la ku nekk préparé wu bu bu vingt heures desee cinq minutes mu mu troisième sonnerie à partir de ce moment nag vingt heures on applique pas pendant cinq minutes bu ko defee troisième sonnerie bi bu defee cinq minutes day nekk vingt heures juste loolu yi ñu bëgg a def la pour que vraiment ñi xam ne euh, vingt heures yi nga waaj a jot ñu préparé wu ba kenn du wax ne daf maa bett parce que li am jëm ñu ñëpp remarqué nañ ko les forces de l'ordre étaient débordées débordées neexul nag ñu bëgga la sa jàmm mais mujj sonn ci sonn sonn sonn sonn te sa jàmm lañ bëgg xanaa nit ki kay ñu war ko gën a bëgg jàmm nañ seetaat xel yi bu ko defee rek euh, yàlla dimbali ñu ba ñu génn ci bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi